am ko liggéey am ko ñoom ba nga xamante ne léegi tamit am te commencé par benn donc bu tey rek ñu dañu war a am ñun ñu naan benn ñaar ñett mooy mooy moo waral lii nag tey bu nekkul nekk Sénégal moo tax nekk ñëpp suñu jàkkee ah li ñu doon def tamit moo doon gën a yokk suñu loxo gis nañu njëriñ bi gis nañu ni produit yaa ngi génn ba extérieur donc loolu yëpp tey jii je pense que c'est une autonomisation et une économie décomplexée que nous avons innovante am na yoo xam ne ay projet la ñu ngi ci loo xamante ne tamit danañ gën a mel ne perte gën a pousse ci entrepreneuriat bi gën a développé ndax tey jii liñ fi gis nii ay transformation la ñu nekkee lépp ñu ngi liggéey ci ay projet yoo xam ne dañ leen di jàppale ci petite unité de transformation comme ça seen liggéey gën a seen activité gën ko mën a jaay Sénégal te Sénégal moom lii nga xam ne ñoom ñu koy def ñu koy def voilà ñu koy consommé parce que ci bitim réew mi ñu koy consommé lu am solo la donc man tamit dama leen di remercier di leen sant mbokk yi suñu gerte gi di yàlla suñu gerte gi di ñaan tamit bu ñu waree di génn ci loolu waxoon naa ko am na yenn forom yi ak yenn suñu yoo xam ne bu ko demee Et aujourd'hui, avec le mobile money, il faut nécessairement avoir un téléphone portable, ce qui peut être contraignant pour les utilisateurs qui n'ont pas de smartphone ou de connexion Internet. Alors donc nous, nous proposons aujourd'hui une solution qui permet aujourd'hui aux utilisateurs d'associer des supports physiques de paiement qui sont sous forme de bracelets ou de porte-clés et qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir payer sans avoir nécessairement une connexion Internet ou d'avoir un smartphone. Ça permet vraiment aujourd'hui aux utilisateurs de gagner du temps et de faire une inclusion pour ceux qui ont été exclus parce qu'ils n'ont pas de smartphone ou de connexion Internet. Et c'est la même chose aussi pour nos personnes âgées, parce qu'actuellement au Sénégal, quand vous voyez nos personnes âgées, il y a beaucoup qui ont du mal à faire des manipulations avec des applications. C'est vraiment contraignant. Mais avec la solution que nous apportons, nous apportons une nouvelle expérience utilisateur à ces personnes-là pour pouvoir payer d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc il s'agit de quoi en réalité Ce sont des objets qui contiennent une puce qu'on appelle NFC, mais qui ont un QR code aussi au Donc, l'avantage avec ce système, c'est que vous pouvez l'associer avec un porte-monnaie électronique du même nom Coripass que vous pouvez recharger via Wave, via Orange Money ou directement en espèces chez le marchand.